ay yoon yu kenn mënta jaar ndax poto poto xar kanam bi leen nag le marché caaro yi wane gannaaw taw yu metti ñu nemmeeku fan yi mujj jaaykat yi ñu njëkk dajal ci bërëb bi di ko naqarlu. ñun li dund ci marché caaro yi moom wax dëgg yàlla dafa metti maanaam nawet bi moom da ko fee fekk ndaxte li nga xam ne mooy li nga xam moo gën a metti ci li ñuy wax ci marché bi jafe-jafe yi mooy ay yoon. Euh, marché nag boobu lu yoon kon marché nekkatu fa ndaxte nit ki bu j di ñëw si marché balaa il faut ñun aw jigéen lañu woo xam ne ñun ñoo gën a sonn ci Thiaroye Gare ndax nu projet duggul Thiaroye Gare ndimbal dugg Thiaroye Gare dara dugg Thiaroye Gare te ñun ñoo ngi fi la ñuy liggéey marché bi bon na kenn mënatu cee dugg ñun ñoo ngi ci maal bi gisatuñu benn client te it noo daw noo dem ci tali bee nit ñay dem mënuñ ci leen ñun daal li nu bëgg mooy ku ñu defara marché bi ndax marché bi rek la ñu am. métti na trop ay fan yu bëri ngi nii nit ñi mënuñ liggéey amatuñ accès ci marché bi parce que suñu place yi fees na dellu ak ndox. mbedd ñu wara a jaar pour dugg ci marché bi naka nonu kenn amul fo tek sa tank tay client yi daan jógee ci bërëb bi dañu fekk ci mënatu ñëw ta marché mënul dox sans client motax essence yi nañ trop franchement parler. ci gilé anam nak lañu ñu jall ci biir marché bi filé ci dëndu bëre bi nak sétlu gi ben la ñaar ba ñetti fan gannaaw taw yu metti ñu sétlu ndakaarook li ko wër ndox baangi ngi di di filé ci pak soplé jëm ba fiñu duppé pak pàkk gis nga xol bu ñuy xey dañuy bàyyi suñu kër eau de javel bu ñu ñëwee fii dañuy yor eau de javel suñu clients yi di jaay sax mënuñu fexe ba jaay lu ñu mën a exprimer parce que terre bi moo ñu rey parce que bu njëkk ba da daan jéggi raay bi ñëw ndugg si dem sa yoon léegi fi ñu toll nii pour nga ñëw ndugg fii léegi am na maire yoo xam dañuy yóbban dañuy toog ñu ñëw nduggal ñu jaar si biir pata pata bi xam nga ndox mi jaar fi nii ñu bëgg ñun ku ñu jàppale ñun xoola mooy ñu defaroon ñun suñu marché mu am ay ndox mi di génn nawet bu jot depuis 94 ba léegi ñoo ngi fii di liggéey caaroy ni la mel mosu am na près de plus de cinquante cantines yoo taw ba legui ubi wuñ sen place ñoñu jaay ñu ben dërëm sen bagage yi yàqu ndox mi dugg ci biir taw bu barki dembe encore même chose ndox mi dafa gëna bari bëri na lu bari ci ay cantine wa marché bi moom képp ko xamanteni ya nga doon yëngu ci marché bi bo daan xey di am 1000 francs fi ñu tolli mëno xey am 100 francs yooyu yóbbu sa kër anam bu doy war bi marché bi nekké sax taxna mbotay bi ëmb jaay kat yi fi yëngu dogu ngir fasiyene jambar lok mairie gox bi liñ bëgg nak ñu xamni taxi municipal yi paré wuñ pour fay ko tay paré paré wuñ pour fay ko ëlëk fi mu toll ni jeune yi ci marché bi yëpp mobilisé wu nañu am nañ plus de 200 volontaires yo xamanteni ñu ci marché bi te ci loolu lañuy dox paré nañu pour duñu fay taxi tay duñ ko fay suba fii taxawuñ te defar marché bi. ñun ñu ngi ci ginnaw goor ñi rek lu goor ñi wax rek mom lañu wax fu goor ñaw fa lañu wax fay ñu fayuñu fay ñu patante fay ñu dara ku neex na nga ñu jiite yobbu police man de ku neex jiite ma yobbu dama fay kenn. man fi lay gis mu ben sànc dara nag benn lampe boo xam ne si ne ne meere ko fi def amul ñun fii ñu nekk ci biir mbalit bi sax ñun ñooy ut bu ñu ba noppi ñooy ut ku ko tonnil ñu fay ko mu ënn mu dem turi ko maire daal moom dara loo si demee mën na ne lii meere ko meere ko fi def man de gisuma ko te gis na ma ko wax amul sax nag boobu léegi gisuñu ko fi sax far tam maire bi waroon na ànd ak ay ñitam ñëw xool marché bi ni ni marché bi mel mu jiim ko mu jiim ci wut solution wutal ñu ay camion même bu fekkee amuñu ay rigole yoo xam ne mën na yóbbu ndox mi wut ay camion ñu ko ngacc boog ndox mi mun a dem xam ñu ngi jooy coronavirus mais lii moo gën a garaaw corona li gën a jàmp nag ci la ñuy laaj bokk na ci ay canaux d'assainissement ak yoon yu baax plus de dix ans marché Thiaroye ci ngacc lañ nekk canalisation lañ bëgg direct ak ay tali yu baax ñu bàyyi marché bi aussi canal bi nga xam dañ ko indi ba ci première porte marché bi ñu dindi ko parce que canal bobu dafa waroon a continuer dem euh, poste Thiaroye dem euh, nu mu tëddee euh, tableau tiawan wa mais canal bi dañ ñëw ba ci buntu marché bi deuxième buntu marché bi kale ko fofu nanguñ ko dindi bobu ba léegi li bëgg nak moy ñi nga xam ñoko doon liggéey muy APIX wala ONAS kum ci mënti doon nañu ñëw égalé canal bi ubi suñu buntu marché ñu continuer di liggéey suñu liggéey. parce que maire am na lu mu war a def ko mais état aussi tëj ci côté marché bi dañu bëgg ñaari passerelle benn bi nekk ci côté yi maquette bi fii war na am passerelle boo xam ne fii la client yi jaar ak dem nekk fi la ndaw yi bu ñu jàngi amuñu fu ñu jaar foofu mun na ñàkk tane muy ñaari passerelle ginnaaw loolu muy tali bi ñu nekk nii nga si ni moo jaar ci euh, jóge ci pont jëm ci maire bi jaar ci buntu camp bi tay bobu yeen ko gisoon seen bop dara baxu fi dara dara dara dara dafa toj manam kenn mu auto manam tay bo joge Dakar di jël oto bëggul fi bagage boo ne ko ci bir la jëm bu la facturé nga am problème da nga fay bo ñëwee da ngeen xulo parce que amu fenn fo jaar ba ba dugg. marché yi gën ci Afrique bo xolé marché gis gisuma marché boobu si gën a dox mais li fi gën ci ay millions kenn xamul lu mu toll chaque jour da ngay juuti juuti juuti mais xaalis bobu ñun gisunu ko. gisuñu fi dara chaque jour ñu nax ñu dañuy manqué ndox mi tey suba dañuy manqué ndox mi da ngay xëy juuti ba sonn boo ñëwee gisuñu dara waaw ñun daal instant yi duñ bëgg nuñ ku nu dimbali ndox mi génn sunu client yi ñëw mënatuñu jaay mënatuñu def dara fii ci marché caaro yi nag ba nawet bi tàmbalee ba tey jaaykat yu bëri mënuñu jote seen place ndax ndox mi nangu na ko boobu ba tey nag ci seeni kàddu amul benn pexe bu ci kilifa yi indi ñuy xamle ni nag dinañu wëyal xeex bi ba ñilee indi saafara ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci bërëb bii